tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu ndoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon groupe parlementaire benn bokk yaakaar moom nag xëy na ci euh, yéenekaay groupe promo consulting gi xëy fàngaam wax ay dëggam jëm ci euh, dund gi nga xamante ni ñoo ngi koy séddaleek marché yi jëm ci wàllum confinement wax na tamit ci Touba moom Moustapha Diakhaté la mu xamle nee na état bu Sénégal nag fi nga xam ne fa la waroon a xeex bi dooree ko fa ndax nag li nga xam ne mooy frontières yi daf ko waroon a tëcc wala képp koo xamante ni dugg na ci réew mi maanaam ñu daat lay quarantaine daat nay wax tamit ci état bu Sénégal nee na décision yi nga xamante ni moom la waroon a jël bi mbas mi di commencé jëlu ci dara moom député bi woon ci yéen kaay groupe promo consulting bi nee na Macky Sall ba sunu yàlla jonne tey ji joxul kenn saabu joxul kenn gel joxul kenn masque te yi nag bokk na ci li nga xam ne dina tax jàngoro ji du mën a law ndax Sénégal bu ñu waxantee dëgg amuñu jafe-jafey xiif lu jëm ci wàllum séddaleeg dundu gi Moustapha Diakhaté ne scandale musiba ma ba kumba akuk looxóor moo ca daal di am ndax li nga xam ne mooy comité de pilotage bi moom la ñu waroon a teg ba pare doog a joxe marché yi maanaam Macky Sall moo respecté wul li nga xam ne moom mooy kàddooma yéen kaay gii di libération moom mu xëy di ñu xamal lañu jamono ji nag fagaru daat nay jot sëkk su dee sax paasewul ndax lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay cas daat nañu koy am am na si nag ñaari nit ñoo xamante ni faatu nañ ci 48 enquêteur bi yéen kaay gi nee na am na sax keneen koo xamante ni ab taalibe la am na wopp ji kon mu nekk ñaari taalibe yoo xamante ni am nañu covid 19 ca diiwaanu Thiès las yéen kaay mu ñu xam la ñu su nag am na ay gox yoo xamante ni njàqare ak tiis daan na leen di dugg Tamba ak Kaolack ak Mbour ndax ka communautaire yi ma nga fay jaaba jonge yéen kaay gii di l'observateur moom xëy di ñu wax nañu ci week-end bi ñetti nit daan nañuy faatu ci covid 19 léegi nag Sénégal lu toll si juróom ci ay nit daan nañ siy faatu yéen yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lañu panique dëgg moo am ca diwaanu Louga la waral mooy sëriñ ba nga xamante ni moo fa amee woon wopp ji di jibi sow te mujjee faatu kooku dem na sa hôpital ba ñetti yoon te ñi nga xam ne ñooy médecins yi mosuñoo jàpp ne dafa amee Covid 19 yéenekaay gii di l'Observateur dikk nag ci li nga xam ne mooy artemisia gi nga xamante ni njiitu réew Madagascar daat nay wax ne dafay faj li nga xam ne mooy Covid 19 ci réewum Sénégal ci région bu Thiès 2007 ba léegi ni ñoo ngi bay journal bi lu ca Tiwaawan la journal bi di Source A moom mu xëy ci pharmacien biologiste bi nga xam ne moo amee wopp ci coronavirus ji ca diwaanu Touba ci hôpital Matlaboul ni journal bi nee na lu toll si juróom benn ci ay nit daan leen kay wàll ginnaaw bi mu wallee ñaar ñoo xamante ni ñoo ngay liggéeyee ca boobale bërëb ak ñett ñoo xamante ni ci fameem la bokk daan nay wàll nag ki nga xam ne mooy majoru service médecine ba bu hôpital Matlaboul Fawzeyni waaye nag li nga xam ne moo ci doy war major boobu bañ nga xamante ni nag ay naataangoom amee nañu wopp ji quarante nuñ ko woon ma nga doon dox ay soxlaam ak i yitteema yéen a kaay gi di réew ko quotidien ak les échos ñu fekk fa Abdoulaye wadd moom nag daan nay bind askanu Sénégal daan na leen di wax ne lu ngeen mën a góorgóorlu ci woppi coronavirus gi ngir nag daal di koy xeex bay bu ngeen def ko ndax am na ñenn ñoo xamante ni menacé wu nañ ne soo moytuwulee koor gii di ñëw dewe na du leen fi fekk yéen a kaay gi di Sud Quotidien ak Libération mu ñu xamal ñu Kaolack daan nay am beneen cas mu nekk ñaareelu cas am na si koo ab banque lay liggéeyee kooke nag fan yi ñu génn la jóge woon Dakar ci Kër ma Masar dem fi nga xam ne maanaam mooy di diwaanu Jandeer foofe nag lu toll si juróom benn ci ay nit la ñu daal di nemmeeku ne ñoo fa amee woppi coronavirus journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu centre traitement bu Daaru Marnaan ba ca Touba foofe nag dafa am benn malade boo xamante ni médecin yi dañoo ñëw di ko jox ay comprimé mu lànk kandaare ne du jël comprimé yi nee na moom du def benn yoon traitement daal di wax sax moom dara dalu ko moo tax du nangu nangu benn yoon di jël ay comprimé yéen a kaay gii la turbine mu ñu xamal laan ñu sénégalais yi ñenn si ñoom dafa mel ni bu dog jotee mënuñoo ñàkk jëfandikoo li nga xam ne maanaam mooy mburu te nag soo muytulee rang yi nga xamante ni ñoo ngi koy rang ci buntu boulangerie yi loole nag njombe laa ko dansé yéen a kaay gii di réew mi mu xëy di ñu xamal laan ñu sénégalais yi kay maanaam ñenn si ñoom mburu moom mënuñu ko ñàkk lekk waaye nag daat nañuy wax ne bu midi jotee midi sëngëm mburu mi nag dina daal di disponible yéen a kaay di grand place dikk ci front frontière u Sénégal yi nga xamante ni am na ku jóge Guinée Bissau bu dugg ci réew mi indi fi wopp ji journal bi xëy nag di waaru ca mbir moome yéen a kaay gi tamit di laas daat nay wax ne diggante Goudiri ak fi nga xam ne mooy Tamba Mouta Jakarta yi ba léegi ni ñoo ngay dem ak dikk fu ci mel ni Touba tamit ak yeneen ville yi daat nañu ko fay nemmeeku te loolu bokk na ci li nga xam ne dafay lawal jàngoro ji yéen a kaay gii di record ñu fekk fa nag Alioune Sarr bi nga xam ne moo jiite CNG moom la mu xamle nee na demam su jotee rek dina ko daal di def te jafe-jafe yéenekaay gi di sunu làmm ñu xëy fekk fa mu Mouhamed Ali moom na xëy séq waxtaan wu yaatu ak yéenekaay gi daan nay wax feebaram bi ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la am ak ñi nga xamante ni maanaam jàppale nañ kook ñi koy jàppalewul daan wax tamit ne jege woon na lool nag dee